mbokki Sénégal mbokki bitim réew xéewal ñëw na ci askan wi de soxna na fi Fallou Fall mu Karim Mbacke andil leen nag ay produits yu mucc ay produits yoo xam ne xéewale na ci askan wi savon miracle bi nga xam ne day faj siti waaye sama kéemaan gi geneen kéemaan a ngi noonu muy kéemaan goo xam ne ci karaw képp koo xam sa karaw day dama mi rot am xam ne boo ko ci diwoo rek tàggoog moom pommade miracle boo xam ne koo xam da nga am yaram boo ko diwoo di nga wàññeeku ak sirop miracle boo xam ne traitement roñon lay nga xam ne mooy drépano pommade miracle boo nga xam ne ñoo am nerf sciatique ñi nga xam ne dañoo am rhumatisme wala ñi nga xam ne dañoo am fatiguement général ak frotté boo xam ne pour sportif yi ak miracle boo xam ne day faj réew loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen indil muy xéewal gi ñu andi réew mi kon yéen yëpp dem leen seeti soxna na fi fàllu fall fa la nga xam ne ca golf la su ko defee seen aajo faj mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois ci luttetv.com ñu ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey vendredi 27 janvier 2023 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay ma ci ànd ak Boucar Ndour borom Sine ak Saloum maa ngi lay siyaare Omar maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar di nuyu mbokku Sénégal yëpp rawatina mbokku internet TV ni nga ko waxee rek tey vendredi janvier Omar ñu ñëw kenn si yéen kaay di nuyu waa Riklaan FM depuis Saloum Vice FM depuis Gambia di nuyu Père Ndongo Cissé ah, depuis Gambia. naka suba si. ça va la pêche xam nga li tubaab naan la pêche. Mm. waaw nice. ajuma ji neexagum na. waaw sant yàlla rek Omar àdduna moom lu mën a xew rek dañuy sant yàlla rek. waaw bi ñu amee wér-gu-yaram am fekkee am tal waaw loolu yaakaar naa ne moom ku ko am leneen loo ci teg rek bénéfice la journal bu suñu làmb ci xëtëb gu njëkk dafa daal di fësal Mbaye Ndewane ñu gën ko xam ci turu Mbaye Ndewane waaye turam dëgg ni Mbaye Ñing entraîneur Tapha Tine ngi yëkkati ay kàddoom nag di ko jëmee ci combat bi war a dox ci diggante Bombardier ak Tapha Tine mu war a nekk revanche boo xamante ne ni revanche boobu àdduna namoon la revanche bu àdduna na moon la waaye nag revanche bu diis moo tax mu jàpp ne ah, croiser bombardier n'est pas une mince affaire ah, noonu la ko journal bi tuddee rek mu mel ni mbay ndewaan daal Omar mu ngi dànkaafu mu wala wala maanaam mu ngi mu ngi xamal tafaatin que ne maanaam li mu am du yomb parce que Bombardier ku ko xam ne c'est un très grand champion bëri nit daan ko nag di booba ak léegi def lu bëgg fukki at Omar wala mu ëpp ko yaakaar naa ne si diggante bi am na lu bëri lu si Bombardier yokk bëri na fekk yeneen champion daan leen nekk na fi roi roi des na fi ci MMA am ci ay combat am ci ay na fi daanaat na fi Balla Gaye si diggante bi nga xamante ne loolu yëpp ay bagage la yoo xamante ni boo ko tëb boo faut en tenir en compte boo ko sóoraale yaakaar na am nañ yaakaar ne foofu la mbay ndewaan di di waxee ba tax daal muy xamal Tafatine que ne euh, euh, euh, croiser Tafatine croiser bombardier n'est pas une mince affaire. xeex bi tamit ñu bari jàpp nañu ni mën naa bañ a feeñ bi yóbbule combat parce que nag xeexoon nañu bële ba arbitre bi nangu bombardier ci loxo Tafatine cette fois ci ñu bari bëgg mu jeexee ci làmb waaye nag mbay ndewaan nee na bagaar bi moom kenn mënu koo éviter ci ñu ñaan ñëpp. bagarre kenn mënu ko éviter ak lu mën a xew avant bagarre bi sax nee na il faudra euh, techniquement et physiquement prêt pour le battre maanaam bombardier di nga am kattan. waaw di nga am kattan di nga am technique pour daan ko. waaye côté waaw waaye côté xeex bi moom nee na xeex bi moom du mën a ñàkk. parce que ñaari mbër la yoo xamante ni tey am naa yaakaar ne foog xeex am pour buntu xeex li mu ko xeex buntu la rek à part kaw dóor nit mu daanu c'est nga gis ku jàpp nit rek di ko dóor di ko dóor di ko dóor di ko dóor ba ba mu daanul boppam da nga mën a dóor benn coup boo xamante ne peut-être da nga ko natt dóor ko wala benn coup a na xeex bi moom du mën a ñàkk dafa mel ni nag Père Mbaye moom bëggul jàmm ci la di daw koru Tapha Tine korom boobu mu lay kor mel ni ku lay yéeg boo seetloo moog boo ñaa heure bu xàccee boo ñaa rek ko fay bàyyi ñu bari duñ fa xaar koor bi mais bombardier da ka fay xaar. koor boobu ñu ko fa xaar ku ci mel ni Elton ku ci mel ni bombardier ñu ko fa xaar yëpp Omar dafa am lu leen lu luñ ci gis. lu leen xamante ni yaakaar naa duñ ko nettali kenn kon yaakaar naa koor boobu tam ku ko gis muy ñëw Omar foo mën a jaarul rek da nga fay aw Omar pour génn ci waaye ak lu ma neex daal am nañ yaakaar ne combat la bu neex. boo xamante ni daal Omar ñaari mbër yi moom yaakaar naa amateur yëpp dinañ am si ñoom satisfaction. waaw loolu moom lu ma yaakaar la na ci na waa Mbour jàppale Bombardier ci côté mobilisation parce que ndaanaan la Boucar Bombardier ku ko am danga koy sagoo danga koy tiitaroo autorité yi nañu génnee kaar yi génnee billets yi jox ko booy yi ñu ñëw stade parce que nag boo seetloo Tapha Tine ak Boy ñaam bu mujj bi nga xam ne Bawol Bawol booloon nañu bokk nañu ndey bokk nañu bàyyi te dañuy mobiliser ba mu neex waa Mbour nañu def noonu ndax làmb ji gën a neex ndax làmb ji neex te loolu mooy seen warugar sax monsieur le maire bi bu génnee autorité Mbour yëpp génne Omar jënd billets yi jënd kaar yi jox ko booy yi yaakaar naa loolu mooy avantage bi parce que mbër bi tamit mënul waajal combat des tamit di génneewaat moyen di ko wut ay tiset ay pied ay car di ko jox boy pour ñu mën ñëw supporter te loolu tamit day taaral bés bi waaye loolu tamit day jëmal li nga xamante ne te moo di bombardier bi nga xamante ne te yaakaar naa ne andi na leen ndam lu ne def lu def si làmb nag lu kenn deful parce que moo fi nekk ñaari yoon roi des arènes ku nekk yaakaar mobilisation rek a yàlla na am Boucar Bombardier icône la Bombardier référence la ci gox waaye ndamu gox la gox goxo am rek war nga ko ndamoo suñu làmb daal di des ak ñun ci làmb ji war a am le 11 février Assane Ndiaye tëggu ko mu am lu doy waar loo xamante ne nii lu TV def na ko gis naa ko démb Gàkku 2 moom nag mooy dànkaafu ki nga xamante ne ni moom mooy Bébé Diène gëm-gëmam bokk na ci jàpp Bébé Diène corriger ko daan ko gëm nga moom bokk na si jàpp Bébé Diène ko daan ko def parce que yaakaar na ne euh, moom nee na daal ni ko euh, Bébé Diène waxee woon démb moom gaa Dóor tey li naan ku fóotal mbët mbët roccil bar noonu la ko journal bi defee rek dalal Gackou Dóor nag muy tànkaafu Bébé Diène di ko xamal ne daal maanaam bu dawul dina ko corriger rapidement mm-hmm. kon yaakaar na ne combat boobu ñaari mbëri moom ku si nekk li nga wax boo ko defee combat bi du yàgg te am nañ yaakaar ne dina neex parce que Bébé Diène bu kenn dootul présenté waaye Gàkku Doo tamit gis nañ ne def na ay preuve am si làmb làmb boole leen Assane Ndiaye tëggu ko mu a nekk le 11 février Omar na ci beneen choc bu mel noonu parce que di jógee fa la Youssou Ndour di jógee fi Bébé Diène di jógee fa la Mor Kankang di jógee Ibulaay indi ñaari xale yooyu daal di boole Youssou Ndour ak Mor Kankang yaakaar naa ne nag làmb la joo xamante ne nii ñi ko bëggoon bari na moom mu ñëw décroché ko. Ibulaay ah borom pro auto Ibulaay nekk accompagnateur Modou Lo dafa ñëw nag si beneen facette si làmb muy maanaam tey tëgg làmb Omar mu décroché nag journée bu neex yu Ndour Mor Kang Kang mu nekk combat amateur boo xamante ni te yaakaar naa ne mbër yi ah ñoom ñaar ñëpp ku si nekk am nga am nga aura am nga dayoo te kii si ndam la jóge te kii su ma juumul si defet la jóge waaye nag combat bu neex a ngi noonu Omar. combat bu neex a ngi noonu Boucar yaakaar naa ni làmb joo xamante ni làmb ju neex la. booy ñàgg numéro 2 journal bi mi ngi ñuy xamal ne mi ngi cité ay adversaire am ci biir journal bi Boy Niang di numéro 2 jamono ji Omar bëgg bëggam yépp mooy maanaam bëreek Moussa Ndoye wala Zos nee na ñaar ñooñu Omar mën moom mën nañ laaleek moom ak lu mën a xew daal nañ ñëw bëri ak moom parce que looluy bëgg bëggam jamono ji nii loolu mooy ay bëgg jamono ji Lat Dior bu écurie Bawol mbooloo moom itamit gis nañu taxawaayam si làmb ji waaw di gis nañ taxawaayam ba sax na instant yi moom na sax am nañu démarché ak lu mën a xew daal bu nee daal bu ko soñoon daal dina bëre parce que lamb la la xam te moom la bëgg tamit si xolam wax na tamit si combat Bombardier Tapha Tine bi mu ci xamal ne daal ne Tapha Tine moom a xew jamono ji pare na ah il pour courager ki nga xamante ni moo di Bombardier soq ak raqam fi mu toll nii bu Boucar ñu ngi ci ay guddi yu bëri setagul. waaw soq et son petit frère soq bu ndaw wala nga ne paa bi rek dans les bu Omar waaye nag lamb ak loolay lamb lii des fois day li may wax rek defat yàqul mbër. au contraire défaite dafa war a defar mbër parce que défaite Omar ci ngay xoolee li la manqué nga mën ko wuti ci ngay xoolee li nga amutoon nga dem jaayante wut wut ko li nga xamante peut-être da nga ko am waaye mu des motul dem motali ko loolu yëpp yaakaar naa ne lu baax la ci mbër mbër day daan sax te du te du xool sax maanaam lu ko lu ko manqué ci combat bi te pourtant des fois mbër daan ba pare maanaam am luñ ko mën a critiquer wala luñ ko mën a reprocher waa ak lu mën a xew ñoom ñaar ay champion lañ nañ yokk cere dolli ñeex. nañu yokk cere bu kar ay mbër yooyu yaru lañu. te li ëpp solo ci doomu aadama mooy nga yaru te am nañu ko ñoom keneen ki nga xamante ne ni ràññee nañu ko ci làmb en tant que promoteur lañu ko xamee woon bi muy ñëw fi mu toll nii nag mën nañu ne kuy tëgg làmb rek daf lay accompagner muy Kandji production moo tax journal bi daal di koy fësal ne Kandji moom moom mu ngi soutenir làmb bu baax. mu ngi soutenir làmb bu baax moom Moustapha Kandji nekk tamit nit ku baax a baax a baax Omar li mu ko waxee rek n moom li am yëpp mën na lu si ëpp bokk ci làmb la ko jëlee kon ak lu a xew lu mu amaat. tamit rek foog mu bokk ko ak waa làmb rawatina waxuma la di ñëw sax nit am journée mu ñëw di si jàpp di liggéey di sonn par rapport ak business bi mu yor liggéeyam temps waaye social bi nga xamante ni mu ngi koy def ci biir làmb te du bëgg sax di ko xam tey ñu bëri ngi fi ñoo xamante ni tey ñu ngi ci làmb ji ngi leen di jàppale te bilaay walaay du bëgg nit xam ko di ko wax rawatina mbër yu feebar gis nga ba barki démb mbër yu bëri ngi fi wala ay ancien champion wala ay mbër yu nekk ay ndaw am jafe-jafe feebar mu yëkkati àllam di leen ko jox di leen di jàppale li may waxal rek Sénégal moom mën nañu inventé nit lu nekk ba mu des baax kuñ ne da baax rek da baax te Kandji ay moom mu ngi wane mbaaxam Sénégal yàlla na ko yàlla lafal tat rek sàmm ko aar ko Omar. am na solo Boucar yaakaar naa ne lu baax rek moom mooy la solo boo ko defee am na solo Zarko rêvam dafa mel ni dafa brisé bi mu jógee ci combat ak Ada Fass. rêvam dafa mel ni dafa brisé jël naa ko démb sax waaye jotuñu cee wax si sanction bi man ak moom parce que débat bi moo yaatu a xew mu daanee Ada dafa ubbeeku woon. waaye nag li ñu naan xalam demoon na bay neex buum nga dog peut-être mën na ne ñoom briser ses ailes waaye nag loolu am nañu yaakaar ne gars dina si trouver solution parce que aj boobu tamit amul sens gis ngeen ni mu defee arène nationale keroog bëri na neexal na yëngal na te keroog tamit si biir làmb ji Zarko mënoo am dara lu nga waaye bu dul loolu moom amul dara dara dara loo koy reproché parce que yaakaar naa ay temps yi ñuy wax yooyu noonu yëpp pour man amul problème xaar bi yàgg na waaye amateur bi ñaari mbër bëree kontaan nañ kon loolu moo si ëpp solo loolu mooy sport football sax da gis muy am ay ay dérapage am yoo xamante ni da si am waaye joueur buñ ne aj mosoo ko dégg club bu ñu ne dagg nañ xaalisam yu mel noonu mosoo ko dégg kon nag Sénégal dañoo bëgg sport te xamuñu sport. am na solo booy Niang numéro 2 dafa mel ni delloo na Sembène. waaw dafa mel ni nag Boy Niang numéro demoon fi nga xamante ne moo di Sambe rek Sambe nag Omar mu ngi ginnaaw Diourbel ci yoonu Touba bi Sambe foofu la nekk euh, nekk nag ah, dëkku cosaanam. c'est normal mu fay dem parce que nit ki moo amoo dara fut lu dul fi nga am fi nga cosaanoo nga xam ne tey say racine fa la nekk faw nga fay dem di fa ressourcé wu te loolu mooy àdduna kon nag ñu ngi koy ñaanal rek bon séjour à Sabé am na solo moom moom bokk na ci mbër yi nga xamante ne nii Boucar ñoo gën a muus ci làmb ji parce que carrière dañ koy togg defar ko am yoon bu ñuy jaar boo xoolee boo ñaam même bu dee yoonam ajoon nañu ko sax bi mu ñëwaatee dafa rattrapé wu ci bàyyi ma ñoon teguwaat ci yoonam ce qui veut dire que Zarko ak Ada Fass mën nañoo jàngee ci Boy Niang parce que Boy ñaar bi mu dóoree Zos wala bu ñu nee moo dóor Zos mbolle bi dañ koo ajoon ajoon nañ ko deux ans je pense xaw ma un an bi mu ñëwaatee dafa am beneen yoon bu mu jaar entourage bu baax dafa baax ci xale na mbëri uti entourage yu baax parce que moo leen di dimbali moo leen di yombalal lu baree bare bari ci làmb bi mu ñëwaatee sax dañ ko def ambassadeur non violence Sénégal noonu noonu maanaam noonu loolay marketing loolu jaay dara tey boo xamee dëgg-dëgg ni sax nga xam maanaam nga koy soupçon naan kii day jël kii day jël sax boo boo amatee dara da ko koy dénk noonu loolu loolu loolu la ñuy manager loolu la ñuy manager man waaye nekkul na ñu jox la dara rek nga yor sa yat rek ku saqat nga dóor ku jooy nga dóor ku lii nga dóor njiit du noonu te làmb ji kenn mënu ko gérer noonu boo ñaa xale la champion la dafa dafa dafa rampe boo yi fii li may wax rek mbër yi ndaw yi ku fi nekk mbër bu ndaw gars yi di la xaalal yoon boo yëgee ci kaw da ngay can mbër da ngay jaar fi nga war a jaar jël sa temps waaye da gis mbër léegi bu def cinq combats sax ñu bëgg la yéegal si si si paa yi dugal la foo xamante ni bokkoo fa ku ñu jël paa moom wax yàlla ku ciy daanee paa ne musoo daan nga xam ne musoo daan mbër parce que ku daan paa daanoo mbër kon mbër yi booy foo ñu a bëreek ba nga xam ne ne boo yow boo yeggee au sommet fay tag parce que yow daan fekk yow daan nga ñi a daan yëpp Omar mooy li dal Balla Gaye numéro 2 daan na ñi mu war a daan ñëpp fi mu toll nii ñi koy daan ñoo ko war a daan ki war a rey boppam teg ci bakkanam mooy Sa Thiès ngir yegg si waaye am na combat bu mag digganteem ak Reug Reug le 5 mars. le 5 mars mu nekk nag journée bu neex ñaari mbër la nag yoo xamante ni tey Omar tey pour nga pronostiquer si sax day métti. ko ñeme. waaye nag ak lu mën a xew mbër bu nekk am nga ay qualité am nga ay fort am nga ay avantages yoo xamante ni tey boo ko exploité mën mën na la suturaal may la nam waaye daal le 5 daal soreetul. na gaa yi teg foofu seen baaraam. na gaa yi teg foofu seen baaraam Boucar yaakaar naa dem na solo bu ci kenn bàyyi sa mënin ci ñoom ñaar ñëpp ba subaat jàmm incha mbokki Sénégal mbokki bitim réew xéewal ñëw na ci askan wi de soxna na fi Fallou mu sëñ Abdou Karim Mbacke andil na leen nag ay produits yu mucc ay produits yoo xam ne xéewale na ci askan wi savon miracle bi xam ne day faj siti waaye sama kéemaan gi geneen kéemaan a ngi noonu muy kéemaan goo xam ne ci karaw képp koo xam sa karaw day dama mi root am na pommade boo xam ne boo ko ci diwoo rek tàggoog moom pommade miracle boo xam ne traitement roñon nga xam dañoo am nerf sciatique ñi nga xam dañoo am rhumatisme wala ñi nga xam ne dañoo am fatiguement général ak frotté boo xam ne pour sportif yi pompe miracle boo xam ne day faj réew loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen indil muy xéewal gi ñu andi réew mi kon yéen yëpp dem leen seeti soxna na fi fàllu faal fële nga xam ne ca golf la su ko defee seen aajo faj